incha allah ñu déglu ko ci nerama bu neex mi baat boobu nga xam ne daf ñuy fàttali Cheikh Ibrahim waaye baat boobu nga xam ne su bindee rek manawul ahraa dana jaayu min xaras min kursi yëpp danañ jaayu kon sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asirul xurturol maaka asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu bismillah قبلها تبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصب الورق ما بت البلاد لا بشر أنت ولا مطرة ولا عرق مطهرة تركب سبيل وقد الجمع نسرا على الورق وردت نال الخليل مقتدما تجول فيها فيسقط لكم كن قلب من صالب إلى رحم إلى مدار فلا تبقوا وتحتوى بيتك المهيمن منه عندي فلا يا تتارك وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق نعم في ذاك يا الرسم البشائر نطيق اللهم إنا نسألك بجاه من عندك والمال أن تعظم حظنا من ذلك النور وضيها وانتدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشد والكون لم تطلع ولا يروم مرق سناك بعدما أثنى على خلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخالق لما وقناص الأخلاق ولا إله صراطك المستقيم ولا آله وقديم العظيم متى يبدو في ذاتي بين صحيح يملك ومن كان من لا يكون كعبد نظاما للحق او نكال عليه غفر عليه من من الله ما وبشره وثم الى اسم النبي لا اسمه اذا قال في الخمسين وزن وشق له من اسمه له وللعرش محمود وعلى محمد تحت فيه ناقه الادباء متجرا ببذلك بذل إلى ليلة الظلم وفي عطافي أو الآمنتي ما لم له من ليل ومن كرم رسول السيف يصدع بي مند من سيوف الله مسلم وبيد يصدع معه بيدي كبار يتامن عيسى اليوم يلوذ بي كلا كل نار يا هاشم هو عنده في نعمة وفاضل يا مدار النصارى في نبيكم واحكم بما شئت من حقي واحتكمي وانصب من ذاته ما شئت من شرف وانصب من قدره ما شئت من ألمي فإن فضل رسول الله ليس له قد فيغيبانه ناطق بفمي لولا سبقت له آياته ويلم آيات ما يدعى لا لسلمي فينتهينا بما تهيأ قلبي يسكن علينا فلم نطيع النيم أيرا فمنا فليس يرى للقرب والبعد في غير منفهم كشمس تظهر بعين بوي صغيرة وتكل الطرف من عمري وكيف ينكر في الدنيا حقيقته ومنيا وانتسل لمعنى بالعلم وبالغلال في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وما بلغ العلم في أنه بشر والنوم خير خلق الله كليوي من ذا الذي تساقط ومن دول فسبقت محمد هذا الذي عليه وقت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين عجب محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين عجب محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين عجب اللهم صل على محمد البريء وعلى سلام وخرجه برات المقتدى والكمال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى انوارك ومال لسانك ولسان حجتك ورشر مملكتك وامام حضرتك وطراز طراز ملكك وطريق شريعتك ومنتظر بتوحيدك انسان عين الوجود وسبب في كل موجود أيا يتوكل متقدم بوضيائك صراط تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صراط لا منتهى دون علمك ساعة تطيق وتطيق وارتضى بعنا وعن والدنا يا رب العالمين لي سعادة ليس تهم وجبا إن لم نكن من فدي بحبهم للدنيا وبجاههم وبيدهم سيدنا سرايا واكتب لنا بخير إلا لنا سواك قد ينتو ربيعي بمرحتي شفيعي المنتق البديع قبل بها مملك بمرحمتي شفيعي بمنتق البديع قبل بها صل على خيرنا من على على السماوات الأولى في العلي ربي بمرحمتي سفيعي بمنتق الأبدي يا محمد سلم بشهاد مولدي شر الولا رسولي شر النبي احمدي شر ربيع الاولي تنيط ربي بمرحتي شفيع بمنتهى الابد في ربيعي كان كربيع يرضي وشفيعي كل خير مدري يا ربي بمن عتي سفي بمن تقلبني أقرب يا محمد المشاعر فرحي شمس يا بطرحي والفخر يا والمرحي شر النبي يقتلي جنات ربي بمن عتي سفي بمن تقلبني أقرب يا محمد شر الفلاح والسرور شر النبي وشهد من غير شهود متوجه مكلين طلبي بمرعتي سفيه بمنطق الابدي تقريبا على بشار الحاتمي شهد به قاسمي وفاتح بن خاتمي واخر اولي تنادى ربي بمنعتي سفيه بمنطق الابدي تقريبا شان ناصري لحق شان لامين يوم في شان ظاهري بكل واصل مليل أنت ربي بمعدي شفيع من تقي البديع أهلا بشان هادي لمن حجر رشادي وقاعد الوحادي إلى الطريق الأبدلي سمعت ربي بمن عبدي منطق البنين غنى وعمل شان سيدي لأحمر واسمتي من هذا السبت الذي بامتداد رسلي أنا ربي بمن عدي سفي بمنطق البنين غنى وعمل وقد كما كنا أعمى وكنا بقولين لنا بالسلاسل كان يا بمنعه سفيه بمتق البني أمنا محمد يا الحفاج وأبوك الحفاظ بربي سلطان وشهدين دنيا ربي بالحكي سبيل بمتق البني أمنا محمد أنا بشار المصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد المصطفى بملك مسير يا ربي بمرأة سبي بمنطق البريء أمر يا محمد شاعر المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى بملك مسير يا ربي بمنعتي سقيما نتق البديع وبها وشر خير خلقي شر جميع خلقي شر عظيم خلقي وكريم رزقي تيأت ربي بمنعتي سقي بمنطق البديع وبها وشر الذي نصره إله واختاره بالحب خيره الخضار تجري ربي بمنعتي سفيعي بمنطق البديع عملي مسافات من لون المسافقة علي بالهباء بكل نور مطري دنيا ربي بمنعتي سفيعي بمنطق البديع محمد شلت دلت بخير ما في ويوم الأمر وطي بذلك فحر في الجليل ولا قلبي بورعتي شبيب من تقبل بليل عشر في ويوم الأمر وطي بذلك فحر في الجليل بمن عدي سقي من تقل بدي كل ما ظهر من خالق ينفك ذكرى في البصر إلى مقام من عليه ربي بمن عدي سقي من تقل بدي ومرأة العجاب أمينة من حين النصر صدابة ثم اختفى في سدة

وعزام خليل الخير أن يعترني بمعدي شقي بمدد البني ورمت شيطاني جراوي بشاني من الضحي مراني يومنا بكل يا ربي بمعدي شقي بمدد البني ودفن ذو الإقبال بأقل مجالي بأفضل الليالي بمهد الفضل جنة ربي بمن حتى سميع بمن تقي البلي هذا في يوم العيد ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في محال عليه جنة ربي بمن حتى سميع منتقل أبدي أمرك محمد الشافعي ولادا وماذا وسادا باحتمال أدائه في الزمين تنعت ربي بمعتي شفيعي منتقل أبدي أمرك محمد يوم سمي محمدا خير اسمي تنظر لمعنى اسمي بجدي ربي بمن عطيت بها بمن تقل ابدا ربيات محمد ذلك يوم العيد ما مثله من عيد تحل بالمولود في محل فقري هناك ربي بمن عطيت بها بمن تقل ابدا ربيات محمد عيد الولاده ومع وفاته من اختمار ابدا

للكريم المقيم بما يعدي سبيل بمنطق المدينة يوم اثنين ولدان اثنين وعزز الكوني مرتمي ومجري يا ربي بمرعتي سبيل بمنطق المدينة أكرم بشار أكرم إبن شاكر كم بأبد الحرمين والخير المرسلين أين تربي بما هدي شفيع بما تمر ودي يوم الصلاة عشنا واستمر لمن حول الخلق

لدى المقابر أسنا ما بفيه تختلي تلعت ربيع يهدي سبيل مكة الهدي أبدا وكلنا وليا وناصرا حبيا ألا نفتشر ويا وجايا بطالي تلعت ربيع يهدي سبيل مكة الهدي مدام كون الإله بالبدن يزري بمحدي سعيد بمدة البدن والي وصحبي وزوجي وحبي وكل أهل حبي مع السلام لكل يا ربي بمحدي سعيد وعمروا بسفينة يقيمون وعيب دائما أبدا فجبتها واجب الذي طلبوه بجاه أحمد ما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولك والقادم سبقنا سلاف الأحوال إلا صلاتك المستقيم على والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الداعين ومن تبع بإحسانهم إلى يوم الدين ورضي الله عن قبض المكتوم مولانا أبي العباس سيدي مولاي الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته آمين وعن خليفتهم المطلق وارث سرهما سر الأكبر أبي العباس مولانا الشيخ أبو, أبو, أبو القاسم مولانا الشيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه wa nafaanaa bi barakaatihi amin mbokki lislaam mbokki Medina Baye nekk mais mbokki ngaan ngaan Alassane ak ngaan Sayer ak gox bi yëpp mu ak gaawaan ñu ngi leen di nuyu di nuyu lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nuyu boo xam ne mën nga jógee ci xalifatul Cheikh Ibrahim Mawlaaya Cheikh Mahmoudul Mahi Ibrahim Niass ak mboolem ay rakkam ak mboolem ay kàngamam ñëw nañ tey useen ci oote yàlla oote bi nga xam ne mooy gën ci oote yi taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum an la na'buda illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun nuyu nañ leen ci nuyu lislaam nuyoo bi gën ci nuyoo yi nga xam ne mooy nuyoo yi waa aljanna waaye mooy ñun daan nuyoo itam yonent yàlla Muhammad sang-sang yi boolaaya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain leen nuyu jëlee jëlee ko ci mboolem topp Cheikh Laye bisab tay bi dafa mel ni dafa jokkalu ko ca bisi démb rek ak bisi bërki démb la nga xam ne kenn ku nekk am nga sa bis lislaam mbooleem bis la bis ci bisi lislaam yi ni ko war alquran waxee mooy wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taawdun benn bis ci bisi yàlla yi rek mu mel ni junney weer ci ni di konte waaye mu ne junney weer mooy junney at junney weer rek nga xam ne moom moom alxuraan wax ci jëm ci xaqi weeru koor mu ne ka mu ne yowman ka alfi shahr yowman leylatun xayru min alfi shahr ida kaana alfi shahr yusaawi ثمانين أربعة وثمانين سنة وعدة أيام وما بال ألف ش... ألف سنة ألف سنة لا يعد لا يعد ولا يحصى min allahi tabaraka wa taala kon nag ñëw nañ ci barab bi nga xam ne uyu nge oo ngeen ci yàlla lépp li nga xamee ne démb doo ne dafa jokkalu ko ci mboolem yi nga xam ne ñu ngi doon def démb ko ci ci jublu ci Mawlana Cheikh Ibrahim dëgg-dëgg xalifa Cheikh Mouhamad Naaxi moom lañ doon uysi lañ uysi bi ñu uysee bàyyam rek kon ngi xam ne ñëpp uyu nañ ko ci oote bi ñi nga xam ne yàlla sonn na leen yëpp dañoo def ñu uyu uyu boobu moo tax ca xistaam ya ñi nga xam ne xadis mutawaatir mooy yonent bi def na morjisaat yu bari yoo xam ne am na benn waay sàmm yi rëbb la woon dafa jàpp mbëttam ca suba rendi ko daal di def et bi mu dugg ci géej gi ba génnee ci rendekaay muy ut beneen di ko wëree suba ba ba mbë ba mbëtt maa ngi wow mu romb yonent mi ngi toog ay saxaabam mu daal di ne yonent li nga xam ne moo doon aadam su gisee koo xam ne ñu ngi koy door gis ne ko naan ko onaa ci yàlla mu ne ko yàlla mu ne waaw mu ne ko mbëtt mii fekk uyu si loolu du uyu si mu ne ko su mbëtt mi uyu nag mu ne ko kon kay mu uyu la mu daal di wekki mbëtt mi génne et daal tëral ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa dabbu mu ne ko labbayka yaa zeyna man ko oo naa la yow mbëtt ko uy naa la nga xam ne yaa lay yaay taaral képp ku uyu bisa penc kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ñu naan sangi-sang yi su amoon benn ba leen leneen ñu ko jàpp leen bàkkale dàkkantale sax danañ ko ëppal lu woon sangi-sang moom nee na moom ci boppam moo ko njëkk wax moo ne ana sayyidu bani aadama wala faxra maay sangi mbooleem doomu aadama te loolu suma ci waaye mu ne ma firi ko mu ne ndax su fekkee ne nekk na ci mbooloo bi mooy seen sang waaye nag su nekkee ci pay bi yàlla foofa jaam la fa te pay yàlla bi moo gën a kawe moo tax mu ne mu ne mu ne mu ne mu mu mu uyo fa ne faxra la mu ne ñetti ñeent ma xaame yi gën a kawe te yàlla okk ci te moom mbooleem ay maqaamam dafa kowe amul ci dara lu suufe waaye gën naa waaye gën naa feeñ mooy ñe li nga xam ne moom mooy mu tënk message bi nga xam ne ci la doon oote moo tax bi nga xamee ne yàlla nga koy éegal mboolem yonent yi yàlla da daan yónni ci ñoom malaaka wala xaatif xaatif mooy mooy koo xam ne kàddu goo xam ne da koy dégg te doo dégg jëm ji ñooñu ñëpp wala mu def ko bu waasita wasita mooy intermédiaire intermédiaire bi dafay yàlla dafay yónni jibril jibril daal di ñëw waxal am na ci ñoo xam ne sax duñ gis jibril waaye kàddu gi rek la ñuy dégg waaye moom bi ngeen xam ne diine islam nga xam ne moom mooy sang diine yi bi mu ko koy jox jibril ci boppam sax amul ma xaaw boobu yàlla yónni jibril boole ko daaba boo xam ne niroowut ak daaba yi matut fas te ëpp na mbaam te du lu tax dafa tumuraanke ndax lim ko mission bi muy nar a dox benn benn daam mësu koo dox mu daal di ñëw fekk ko mu ngi tëdd ci néeg Zeynab yi Ummu Haani jigéen ñi Seydina Seydina Ali ibn Abi mu daal di ee ko ànd ak moom ba ca ba ca ba ca ba ca ba mu daal di jàpp julli ñaar mu rañaanee foofa dem daaru boobu nag dafa gaaw ba nga xam ne fu bët ba dem rek yow àddu fa fekk diggante Màkka ak Medina Màkka ak Baytul Maqdis doxam ñaar ñaar ñaar ñaari weer la mu daal di ko sama borom moo la oo nga ñëw uy si oote bi yàlla bi nga xam ne mboolem yonent yi ñu ngi la fay yi téeméeri junni lañ ak ñaar fukk ak ñeent li ko dalee ci aadama ba ci yonent yàlla isaa mu daal di war daanoo bët bët te tëbee màkk rek daal di àgg bayti maqdis ci ay matul seconde matul minute foofu la fekk mboolem yonent yi jibril daal di fàkk jot benn jaaro boo xam ne yonent yi daal di dem bayti maqdis su fa lañ naan ew seen daaba yi mu teewal ko daawal foofu mu dugg fekk mboolem yonent yi yonent yi comme ni ma ko waxee téeméer lañ te kii nañ al al al fëkk xadiimul téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent di ko dale ci aadama ba ci yonent yàlla Muhammad mu yonent yonent yàlla Isaa moom moom mujj ci ñoom ñëw fekk ñoom ñëpp ñu sàpp di ko xaar mu jiite leen julli ñaari rakka mu ne bi mu sëlmalee ci la yëgee mar woo xam ne mosu koo mar mu ne Jibril dama mar mu andil ko ñetti këll bii ndox a ci nekk bii sàngara ci nekk bii meew ci nekk yonen sa sànni meew bi daal di naan mu ne alhamdulilah kii xeetam mucc nañ su naanoon sàngara ñu xam ne xeetam dañoo xala xala mucc waaye nag alhamdulilah bi nga xamee ne meew la naan kon xeetam mucc na te moom muccal muccal xeetam rek moo ko tax a jóg mu ne nag foofu nag biñ génnee ñu julli ñaari rakka ñaari rakka ñaari rakka yooyu mas naa bàyyi wax bàyyi ne ko yonent yooyu xam ne ñoom dund nañ ba tey njëkk yonent yàlla julli ndax gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw dee lii lan lañ doon julli mu ne ma julli càng la càng la càng gi nga xam ne yàlla rangaloon na ko rangaloon na ko te ñoom gisuñ ko moom la leen teewale ñoom ñëpp ñu daal dajee mu jiite leen ñaari rek moo tax ñu naan imaamul ambiyaay wal mursalin foofa nag la jël daaba bi baa mu ne xamuñ daaba la mu def isra wala wa wala wala miraaj bi la waaye li ci mën di am daal fu xool rek bëtam bi bëtam ba àgg fa fu bëtam bi xool rek yooyu àgg fa te bi tolluwut ak xool yi bàyyi daan wax ne biddiwi dëlluñ bii ki gën a gis ci àddina ñiy seet ak juróom-ñaar lañ ci gis yeneen fi daana ci gis fukki fukki fukk ak ñaar ba nga xamee ne taxaw na daal di asamaan bu njëkk loolu nooy asamaan bu njëkk fekk fa aadama mu fëgg ñu ne kan la mu ne jibril ko àndal mu ne muhammad ñu ne yónni nañ ñoom ñëpp kenn amul kenn laajteewu ko ndax yàlla nett na ne ci alxuraan ne parce que yónni benn yonent lu may signé nga contrat ne soo tasee ak yonent yàlla Muhammad sa message bi jeex na da ngay dëpp topp ci kooku moom la alxuraan di nett ni wa id axadna misaaqa bani israila wa id axada allahu misaaqa bani israila ah wa id axadna min annabiina lama ataynakum min kitabin wa xikma summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuminuna bihi wala tansurunahu qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ashahidina contrat balaa bàyyi balaa yàlla yónni benn yonent da ngay signé ne soo gisee yonent yàlla Muhammad sa sa ñoom ñëpp ñu ne ñun ñëpp d'accord nañ ñu signé nañ moo tax kenn laaj taw kan mooy Muhammad ñëpp ñu ñu ngi ko doon séntu mu daal di dem. mu ne kan la mu ne aadama mu ne marxaban doom ji tedd yi marxaban sangi-sang mu ne mu gis ba mu mu déparé ci moom jëm asamaan ñaareel mu dégg aadama mu gis aadama su xoolee ci ndeyjooram ree su xoolee ci càmmooyam jooy mu laaj Jibril ne ko lii lan la mu ne ko doomam yi nga xamee ne yoon a taxee dem aljanna ñun ñooy gis ci boori ndeyjoor mu koy mu koy kontaan la ba muy ree waaye su xoolee càmmooyam ñi nga xam ne yàlla ñu ci yàlla musal ñoom dañoo nar texee ni ñoom ñooy dem sawara loolu la jooy bët ba dal ca asamaan yi ñaareel weewat tal weewat dal fa mu daal foofa fekk ñaari doomi bàyyi tax yi muy muy Ibrahima muy muy Yaxya ak Isa mu fëgg ñu ne kan la mu ne Jibril ko ànd ak mu ne Muhammad yónni nañ ko yónni nañ ko marhaban mu yonent bu tedd bi sa ngi mbindeef yi mu daal di dem ci asamaan yi ñetteel foofu la fekk yonent yàlla mu fekk mu amee dayob taar bàyyi mu ne su fekkoon ne li rafet ci àddina yëpp dañu ko dajale da seetale ko téeméeri téeméeri cër li lépp lu rafet lu rafet suñ ko biñ ko xaajee téeméer boobu juróom fukk bi ci taar yëpp ci yonent yàlla yusufa la nekk juróom fukk bi lépp lu rafet ci àddina rek ca juróom fukk yooyu jógee mu amee une taar dayoo taar loolu taar boobu moo taxoon jigéen ñi di nattu ci kanamam ba su génnee fekk ñu amee ay paaka di dagg seen seen pom yi seen loxo yi la ñuy dagg waaye bàyyi mu ne su fekkoon ne yonentu yàlla Muhammad la kon duñ dagg seen loxo yi waaye seen xol yi la dagg loolu ndax Yuusufa dafa taaru rek em ci moo tax taar boobu boo ko fitnaan ba ñu def ko ñu sànni ko ci teen ba moo ko fitnaal ba jigéen ñi ba dugal ko ci kaso bi mu ne nag mu daal di dem ci asamaan yi ñeenteel bët ba dal fa yow dal fa foofa la fekk kan foofa la fekk Idriss ki njëkk bind moom la ñuy wax ndey bindkat yi moom moo njëkk a moo njëkk a bind moo tax mu xam-xam itam genn wàll xam-xam yëpp moom moo ko amee waskuf fi kitaabi Idrisa moo tax ba yàlla di séddale téere yi jógee ci asamaan di ñëw ci suuf euh, juróom juróom fukk moom mu fukk juróom fukk moom la jox tey na na fukk moom la jox mu fanweer moom la jox euh, kii li nga xam ne moom mooy Cissé caate Adama jox Idrisa juróom fukk jox Moussa. fukk jox yonent yàlla Ibrahima fukk muy téeméer après nag mu daal di teg ci tawreet ak linjiil ak zabóor ak furqaan moo tax téeméeri téere ñoo jógee ci asamaan ñu yonent indi yonent ak junne lañ ak ak junne ak ñaar fukk ak ak ak ak ñaar ñaar ñeent ñoom ñooy yonent yi ñu am na ci ñoo xam ne dañoo indi téere mooy mooy téeméer téeméer yooyu ak ak fukk am na ci ñoo xam ne indiwuñu téere dañoo ñëw rek rek confirmé yonent bi jiitoon li mu indi woon ñu dëggal ko am na ci ñoo xam ne dañee nañ ja yónni waaye joxuñ leen téere am na ñoo xam ne dañ ci dañ leen yónni jox leen téere téere yooyu yëpp soo ko dajalee mooy téeméer ak fukk ak té muy muy muy téeméeri téere ak ñeenti téere mu téeméeri téere yooyu ak ñeenti yëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko bi ñu ko tënkee alquran moom moo moo moo remplacé loolu yëpp moo ko résumé ñoom ñëpp la nekk ca téeméeri téere moo nekk ci alquran moo tax a yónnee rek mu ngi ci alquran waaye mu ne bu nekk war nga ko jàng wala nga jàngal ko nga dégg fi ñu koy ndax ku ci jotoon tey convocation ñu ne la gouverneur moo la ko jox wala président de la République wala moo la ko jox doo am jàmm. te xamoo li nekk ci leetar bi leetar bi nag alxuraan nag mooy leetar bi yàlla yónni def ci lépp lu mu def ci lépp lu mu def ci lépp lu mu def ci lépp lu mu bañ bu ko jàngut itam mën nañu war nañ mën la ko jàngal te léegi yëf yi yomb na ndax rajo yaa ngi fi média yaa ngi fi waxtu bu nekk nga gis ñuy firi alxuraan te kon nag loolu mooy Firuz bi ki nga xam ne Iblis bi nga ci asamaan ñeenteel mu ne bët bët dal ci asamaan yi juróomeel ngay ba daal di dal foofu la fekk Haaruna Haaruna doomi bàyyi Moussa la rakkam la moom itam waaw aw xeetam dañ ko bëggoon moom dafa contré Moussa Moussa la waa ay aw xeetam bañoon waaye Haaruna moom xeetam dañ ko bëggoon dañ ko bëggoon moom la ñu wax ne al muhabbatu fi xaw yi comme li nga xam ne noonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu demee ci atam ñaareel ba gis na mbëggeel ci ci sahaaba yi loo xam ne yàlla mosu ko ci moom xamuñ ko woon waaye bañ ko xamee bu ndax moom mu daal di kan la mu ne ji mu ne Jibril ko àndal ci asamaan yi juróom-benneel foofa la fekk yonent mu nuyu nuyoo ñu ne kan la Jibril ko àndal mu ne Muhammad yónni nañ ko yónni nañ ko mu ne ba muy tëdd rek mu ne yow yàlla allahumma faddaltahu anni yow yàlla yaa ngi ni gënalee nga ko ci ma ko xale bi juddu barki dem rek nga jox ko loo xam ne bani bani Israël yëpp man am amuñ amuñ tàgg yow waxoon naa ne ma may loolu bani Israël fekk nag moom daf ne moom ñoom dañ doon xamoon nañ li jiitu moo tax mu ne yàlla ab yëre dana ñëw téere bi nga koy jox jox ma ko mu ne ko Moussa doyul mu ne ko kon am na aw xeet woo xam ne seen téere bi seen gune dañ koy mokkal seen dund yi ba léegi kenn mësoo dégg euh, mësu kenn mësoo dégg ci mokkal na injiwil wala wala wala mokkal na luqa wala mokkal euh, euh, te tawreet bi nga xam ne mooy mooy téere te tey nasaraan yi benn téere la waaye dem nañ ba mu doon fukk ak ñeent téeméer ba doon juróom-ñetti fukk ñu dajee ne nañ li ci bokk liñ ci def ndax ñoom seen cardinal bi am na droit waxtu bu dara nekkee yoo xam ne nekkoon seen déréw bi te soxla nañ ko ñu dugal ko ci loo xam ne nekk na ci te neexat na ñu génne ko ci ñoom waaye biñ dajee cinq téere yooyu nga xam ne benn la woon te man xas ko indi gannaaw juróom fukki at boobu xam ne yonent yàlla Isaa ñoom ne nañ dee na waaye yàlla nee na waaye moom moo ko yëkkati ci kaw bañ demee ba yë téere téere boobu dem na ba mu des ñeent ñu ne ñeent yi daal mënuñ cee weddi benn ñeent yi kon mooy benn ba gënoon benn benn ba wérul ci ñeent yi la nekk waaye gëstukat yi ku tudd Maurice Bucaille xam ne moom am na ñeent fukki at ci église bi doon jàng doon gëstu seen yooyu mu bëgg a seet comparé li si yonent yàlla Muhammad ak yonent yàlla Isaa liñ koy tara doyu ko mu dem Égypte dafa juróom-ñetti at jàng arab jàng alxuraan ba pare daal di changé téere bi mu doon bind daal di tuddee ko tawreet ak linjiil tawreet bible ak euh, alxuraan ak science ñu gis ne lépp loo xam ne alxuraan indi na ko li nga xam ne docteur yu médecine ñu ngi koy door a trouvé soo seetee al alquran dëgg wéral na ko waaye ñoom seen yos yi am na am na yu bëri yoo xam ne waxu ci sax waxu ci droit yu bëri waaye waa jooju mu ne li ci gën a éemu ñeenti téere yi ñu moom ñoom ñoo gën a wér ci téere yi juddu Isa soo koy soo koy sooy sooy bind ci moom war ngaa wax mooy kan mooy doomi kan waaye doom yi nekk ca ba way jur yi ñu ko defal ca ca ca ci téere bee niiruwut ak way jur ñu ko defal ci téere bee kon benn wéeru ci bàyyi mu ne waaye li ci gën a gàtt nit kay sooy bind ci moom dangay wax ana kuy baayam isaa doomi kan yàlla da bi mu koy wax dane isaa doomi mariama ndax amut baay te loolu ñoom tumurankete ci ñoom waaye ñun ci lislaam tumurankewut ci ñun ndax lislaam yonent yonent aadama mooy abul bashar bu ko yàlla bindee bu ko yàlla bindee dafa amul ndey amut baay yàllaa ko mooñ ci loxoom rek daal di bind ko amul ndey amul baay ko koy moo gën a tumuranke biñ defaree aadama ba pare ba def ci moom ruuxu ba pare daal di defar ci fer ci càmmooyam ci lañ jël bind ci Isa bind ci ma Awa jabaram mu daal di jóg bi mu jógee rek bugur fekk ñoom ñoom malaaka yi ba yàlla wax ne inni jaailun fi lardi xalifatan xal naa def xalifa ci kaw ci kaw suuf si xalifa yi doo yàlla nag du niro mooy xalifa yi yi nga xam ne ñun suñ bàyyee dee ka mu jël koo def ko muy xalifa wala kañ jiital déedéet xalifa boobu ci tur kii mooy xalifa mbindaan nekk ko nekk nekk gën yàlla nekkoon ci la nekk rek ci la tëjëli yooyu nga xam ne yàllaa fi nekkoon ba fi dara nekkut mu bëgg ñu xam ko mu ne kuntu kanzan lam oraf fa ahbabtu an oraf fa xalaqtu xalqan wa bihi yaarifuni mu ne damaa dewoon ndàmb moo xam ne kenn xamuma feeñ ku njëkk ga dafa dafa dafa tumuranke ndax amul ku ku ko seede mu bëgg nag ñu seede ko mu daal di amul matière première bu mu defaree leneen ndax leneen nekku fi lu ma yàlla mu jël ci leeram gi def ko muy xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu muhammadiya yooyu ñi nga xam ne njëkk aarifuna billaahi ci ñaan sukkandikoo ba am ne mbindeef yii am na lu leen jiitu lu leen defar te loolu am na lu fi mas a nekk te daaw te mos fa jóg te du fi te du fi jógee ñu tuddee ko hayula marakum karubiya xel mu sell mi tuddee nañ ko lu nekk waaye bàyyi mu ne mooy xaqiqatu muhammadiya nga xam ne moom la yàlla njëkk a bind def na ko ay junne at ndax booba at amut espace amut suuf amut kaw amut mu daal di bind ko ni mu xam kenn xamut fa mu nekkoon mu nekk di di di jaamu boromam moom moo njëkk a jaamu boromam bi mu soobee yàlla pour mu def ko nag dafa defar lu mel ni seetu won ko boppam mu gis ne dayob ka dayob taar dayob mel loolu lu nekk rek tera dayob terakaan teraanga loo xam ne mësu koo gis ci mat ak rafet su yàlla doon am melokaan melokaan wu lay am mu ñaq ci boppam ñaq woo gor soo ko teelalee dafay ñaq ñaq woo ci la yàlla bindee taw ci la yàlla bindee asab ndox kon mu doon géej géej googu di pal pali ndax weegu yonentu yàlla Muhammad gi nga feeñ na ci ci moom du fa fekk géej du amul yëngatu dafay yëngatu yëngatu boobu jur fuurit jur ngelaw ngelaw li di di fër di duusi di fànqla ba mu def furit furit mi ngelaw li wowal ko ba mu dox xeer xeer yi di fenqalante ba mu saxaat saxat soosu ci la yàlla defee asamaan furit ma mu defar ci suuf daal di bind àddina bi ci juróom-ñaari fan juróom-benn fan su ko neexoon mu ne ne nekk rek mu nekk waaye def ne addina bi lépp lu tax mu defar ko doomu aadama moo tax mu defar ko ñooy jëfandikoo suuf si ñooy jëfandikoo géej gi ñooy yëfandikoo bant yi ñooy rab yi ñooy rey ñooy ñooy ñooy fees ñooy def lu nekk dégg nga doomu aadama karim nag su fekkee ne dafa defar dafay teral dafay defar invitation dafay indi ma kii yëpp élément yi nga xam ne moom mooy moom la invitation bi làmboo ba mu ba mu daj mu door a indi ki muy invité moo tax mu juróom benn fan yooyu mu ko defal jaa doomu aadama da doon jàngal ndax moom mooy gérer àddina bi moom mooy sayyidu sayyidu sayyidu bani adam waaye ba nga xamee ne nekk na foofu juróom-ñaar juróom-benn fan ba mu daal di bind ko ba mu ko bindee rek bind aadama bind xawaa kon xawaa itam moo gën a moo gën a moo gën a kéemtaane yonent isaa ndax aadama amul ndey mooy kéemtaane kéemtaane amul ndey amul baay xawaa baay la am ndax ci góor lañ ko jële kon am na baay waaye amul ndey mu des beneen ñetteel bi nga xamee nag danañ ci xamee ne yàlla mën naa lu ko neex mu def ko mën naa defar ko amul ndey amul baay mën naa def koo xam ne baay rek la am mën naa def koo xam ne ndey rek la am moo tax nag ñoom nag ñu ne gannaaw gisuñ ndey ci moom kon yàlla la yi nga xam ne moom moo ko jur jabar yàlla la moom doomu yàlla kon yàlla yi ñett lañ bàyyi mu ne ñoom ñëpp dañuy nar yàlla bëgg a wane kàttanam rek ba nga xamee ne dem na ci asamaani juróom-benneel mu ne yow yàlla mu fa fa la fekk Moussa moon gannaaw rek mu ne ko yàlla gënale nga ma kii ni ngi judd barki démb rek nga nar ngaa texeel ci aw xeetam loo na ne bani Israël matuñ ko mu ne ko Moussa loolu Mouhamad bu ko bul jege loolu xala alali jirim la Mouhamad ibn Abdoulaye moo ko eroo mu ne ko ñoom may nga aw aw xeet gis naa aw xeet ci lawhil mahfuz boo xam ne seen téere dañ koy mokkal mu ne ko kon mayal loolu ba ni Israël mu ne ko déedéet loolu itam Muhammad ko moom mu ne ko kon nag euh, gis naa ñoo xam ne dañuy or benn bëccëg ñu dee leen ko defal orab dappet suñu oree weer ñu defal leen ko orab at mayal ko loolu ba ni Israël yàlla xaaju ko ne ko ko yaa Muusa inni stafaytuka ala nnaasi bi risalati wa bi kalaami fa xuz ma aataytuka wa kun min achakirina e yow Moussa def naa la nga nekk ab yonent ma boole la ci ulul asmi ma wax ak yow ci lu dut waasita wax ak yow direct te yonent yi des amuñ loolu mu ne ko li ngay laaj mustahil la doylu li ma la jox mu ne doylu naa doylu naa doylu naa yonent daal di rañaan nag bët ba dal ci asamaan juróom-ñaareel foofu la fekk yonent yàlla Ibrahima mu ne nga xam ne kii di wax ak yéen moo ko gën a niru bàyyi mu ne wax na dëgg ba ñuy dem di topp yonent bi suñ toppee ne bii tànk tànkab aboubacar la amul sikk bii tànk tànkab yonent la waaye tànkab yonent bi léeg-léeg mu feeñ waaye léeg-léeg mu nëbbu ndekete loolu sax kéw kéw kaawteef na moo gise la yonent yàlla def ko mayoon karaama su dëggee ci ba ci balanc mu ne man ruxub ruxub bi may def di ko def nit ñi dama koy def su ma yonent loolu loolu ñàkk teggin la ci man moo tax su yonent bi dëggee dafay dëgër ba tànkam bi du feeñ su dëggee ci xeer xeer yu def naan may itam du ma dëgër ni may def ci doomu aadama yi mën na nooy nepp ba nga xam ne moo tax soo ko toppaan ay da fekk su dëggee ci xeer tànk bi feeñ waaye su dëggee ci balañ ci ba tànk ba du feeñ foofu la fekk yonent yàlla Ibrahima mu ne kan la jibril mu ne kan mu ne mu ne man man la jibril ko àndat mu ne Muhammad ibnu Abdullah mu ne yónni nañ ko nañ ko doom ju tedd ji marhaban yonent bu yonent bu xiw bi bàyyi mu ne mboolem yonent yi mu fekk da ko dale ji asamaan bu njëkk ba ci asamaan juróom-ñaar ibrahima ak aadama rek ñoo ci wax ah, ñoo ko wax doom ñoo ko teg ne marhaban doom ju tedd ji ndax aadama moo jur mboolem doom doomu aadama yi waaye yonent yàlla ibrahima itam moom moo jur isaaqa isaaqa mooy mbaame yahud yi ismaila mooy mooy mooy mooy mooy kii mooy maam maami yonent yàlla muhammad mooy maam yaaram yi moo tax ñoo ñu ñu ne ko doom jibril ne ko sang bi nag man fii laa mën a foofa ca bayti mamour ña nga fekk yonente yàlla ibrahima mu sukkandiku ci mun muntaha ca jannatul mawa amee mbooleem xale yi nga xam ne dañuy juddu te nara doon jullit moo leen di téye foofu di leen jàngal alxuraan mu ne nag jibril ne ko sang bi man fii laa mën mu ne ko bu ma def nii yoon tiis wi nga ànd ak nit ba ci ba ci jamono ji ba ci place bii nga di ko fi bàyyi mu ne ko juróom-ñaar fukki junne pay ngi ci suma kanam yoo xam ne su ma fa demee ni suñ cunkoor di lakkee ci safara noonu laay lakkee bàyyi mu ne doomu aadama nag lu màgg màgg màgg léeg-léeg aadama yi tukki mu yëg wéetaay ci xolam yàlla defal ko bàyyi def ko daan mu ne tasjil yi enregistré yi nekke yàlla defal na ko bu yàgg ma nga xam ne bindagut aadama bindagut addina bi nekke tasjil lañ baati Aboubacar ak baati Omar mu dégg ñuy wax mu ne ah suma gars yi agsi nañ fi looloo ko sawarloo mu daal di dem baa ne ñooñu kay seen xel dajut seen xel xel dajut ne ne doomu aadama mën naa àgg foofu muy dem nag di dem di dem ba gisatul kaw mu dem di dem dem ba gisatul suuf gisatul dara am kaw amatul suuf amatul mu ne mu dem ba jege yàlla ni nga xam ne xala ak ñaari xoccam mooy yi ñuy xalamee nu ñuy jegante ñu ne wala lu ëpp loolu su summa danaa fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna mu ne nag kon ñaari jëmm nekkatuñ fa nekk yàlla dafa jël dafa nekkoon rek muy mooy ba fa nekkee te dara mu nekku fa moom ak leer googa mu jëloon tibb ko def ci xaqiqatu Muhammad def ko lépp dafa dellu ca ca ca ca azal rek azal dellu ca abat bàyyi mu ne ndag wéetaay wu rëy yàlla feeñu ko nag foofu la ko joxee téere boobu mu ne gis na ci yoon bi mu ñëw ay ay nit ñoo xam dañuy dañuy dem rek di romb rek mu ne jibril ñi ñëw nañ mu ne ku daal ba ma yàlla bindee ba léegi damay gis ñuy dem rek dem xam xawma fu ñu jógee xawma fu ñu jëm ta dox bi mas mas ta taxaw mu ne mu ne ko yow jibril sax ñaata at nga am mu ko ah sa ngi man de mag laa de waaye nag xawma suma at yi waaye am na biddiw boo xam ne dafay feqe ca arsh dem ca sidratul muntaha juróom-ñaar fukki junne yi at yu nekk fekkee naa ko juróom-ñaar fukki junne yoon yonent bi ne ko waaye biddéew boobu mooy man kon ndeke yonent bi moom mag jibril mi nga xëy moom mooy sangi aadama yi ko loolu mooy mu ne bàyyi mu ne nag kii aarif su fekkee ne mi ngi ci xam yàlla bay def sayroon li nga li nga gis rek la yàlla di wan moo tax ñam taseetoon muy téeméer alfa ka xadimin téeméer junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti yonent ma ngi leen fekk ca bayti maqdis mu judd ak ñoom julli ñaari rakk ar buraax dara gënu koo gaaw waaye ba bët ba dalee ci asamaan mu njëkk fekk na fa aadama ba mu demee ci asamaani ñaareel fekk la fa fekk ak yaxya ba mu demee ci asamaani ñetteel fekk la fa yusuf mu demee ci asamaani ñeenteel fekk la fekk foofa la fekk idris demee ci asamaani juróomeel foofa la fekk yonent yàlla haaruna mu dem ci asamaani juróom fekk fa moussa mu dem ci asamaani juróom ñaareel fekk fa ne lu leen gaawal lu gaaw li nga xamee moo yóbbu yoon lu gaaw waaye loolu yàlla dafa koy won rek te kenn ku nekk lim ne kuy def seyru li tolloo yow rek la la yàlla di won comme demee ci asamaan bu njëkk aadama la fa fekk mu ne loolu dafa niroog maqaama yonent bi sallallahu alayhi ndax aadama ko yàlla bindee moo xawaa def ne ko askun anta wa zawjuka ba mu ba nga xamee ne dem na ba ba moo tax ba mu nekkee ci alam ba gannaaw gi ñu génne ko aljanna ndax la ko iblis jax jax jaxal jax jaxaloon liñ ko wax ne wala taqraba hadihi shajarata fatakuna min azalimina mu daal di li mu ne ko def laa bëgg a nax rek waaye garab gi soo ko lekkee kenn dootu la mën a génne fii gis nga doomu aadama rek mu ne aadama awa jël daal di dencal aadama mu ñëw mu jox ko ba mu ko defee rek mbubb yi daal di naaw ñu génne ko bàyyi mu ne loolu aw ndoxalin la rek ndax aadama yàlla def ko woon loolu waaye ba nga xamee ne mu ngi nettali ci alquran ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibaali fa na an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaan mu ne mu ne yàlla ba mu defaree ba ba mu defaree aadama daf ne ko dundal dundal ci kii ne mu ne waaye doomu aadama dafa mën a tooñ moo tax fekk nag def ne ko danaa la tuumaal de bi mu waxee ne nag indi jaay leen fi laa di xalifatan danaa ndax dafa gaaral ñuñ kaw ne leen dama bëgg tànn nit ñi def leen ñaari xaaj mindaakoon yëpp ca mujj ak jamono ñii dem arjana ñii dem asawar kum kum gaaral rek suuf yeeg malaaka yeeg nit yi kaw yeeg nit suuf ñu ne ko ñun daal ñaanuñ yàlla nga di ñu nga di ñu génn ci ñun cër buy dem safara mu daal di nag Adama moom mu ñu ñu wax ko ko mu ne nangu naa mu ne ko danaa la nattu danaa la tuumaal de mu ne ko moom jaag su fekkee yaay su fekkee yow yaa gërëm rek man nangu naa moo tax la tu ba mu moyee bañ génne ko fekk yàlla nam bind suuf rek ak ñu fay dëkk waaye itam moom moo ko dicté li nga xam ne moom la tuubee ba yàlla nangu waaye bàyyi mu ne Adama bi mu as asa Adama rabbahu fa xawa bi Adama euh, tooñee tooñ yooyu yàlla moo ko digal ni mu balaw moo tax bi mu balaw mu baal ko waaye la kii wax wax firaaw na ne abu jaal na iblis ba nga xamee ne moom ba nga xamee ne moom moom moom juum na moom moo ràbb ay baatam rek daal def ko moo tax yàlla nangu yàlla dàq ko ni ko innaka la minal matrudin mu ne nag waaye mu ne mu ne mu ne loolu tax aadama ñu fekk ko ci asmaan ña bu njëkk loolu niroog yonent moom itam ba mu juddoo ci Makka la juddoo dëkk bi ko gënal mu juddu fa nekk fa ba am ñeent fukki at yàlla yónni ko alquran mu toog at tegaat ci fukki at ak ñett muy juróom fukki at ak ñett ba pare yàlla ne ko nag gàddaay dem Medina keroog ba mu génnee ba ba ci biti biti Makka daf ne yow yàlla yaa ngi may jëlee ci dëkk bi ma gën a bëgg yàlla nga ma yóbbu ci fi fi nga gën a bëgg ñu tànnal ko Medina mu dem moom itam mu mel ni aadama ni mu jóge woon ci àjjana dem sa de de dem ñëw ñëw ñëw ci suuf asamaan ni ñaareel fa la fekk yaxya ak isa ñoom yahudi ñoo rey isa ñooñu ñoo rey yaxya doon nañ bëgg a rey yi itam ba ñoo ñuy wax seen téere bi nañ ñoo ko rey waaye yàlla ne reyuñ ko waaye ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahum mu ne loolu tax moom itam ba mu demee ba dem ba dem Medina fekk fa euh, euh, ki mu yahudi ak nasaraan yi ñu bañ ko bañ boo xam ne ñoom itam doon nañ ko jéem a rey moo tax mu fekk fa loolu ñu ne xaalaam moo tax ba mu demee asamaan ñaareel loolu la fa fekk ba mu demee asamaan ñetteel ku mu fa fekk muy muy muy muy muy yusufa yusufa la fa fekk muy genn waale taar nit ñi dañ koo bëggoon a bëggoon bëgg bëgg bëgg bëgg waaye nag taar ndax taar bi ko mayoon moom itam yonentu ba mu demee ba gàddaay ba dem Medina ba dem ba dem Medina ñu bañ ko fekk ñu bañ ko waaye ba mu demee mel mu ñu gannaaw bi gisee jikkoom yu rafet yi ak melokaanam yu baax yi ñuy commencé di ko bëgg di ko bëgg moo tax asamaan ñetteel Yuusufa la ko fekk loolu la ko fàttalee asamaan ñeenteel Idrissa Idrissa moo njëkk a bind yonentu gannaaw sulhu Xudaybiya biñ geeree biñ biñ demee biñ demee Màkka Medina waa Makka dañoo takk xarañ daal di ñëw fekk mu xëy rek fekk ñu wër ko boor bu nekk ba muy gas ay ngaska mu ne moo tax ñett ba pour bëggaat koo rey mu ne yow yàlla su fekkee ne bëgg nga kuré si tuuti suy soo leen faagaagalee tey kenn dootul ak yaamu ci kaw suuf moo tax foofa moom moom kii la fa fekk sa mu gannaaw guerre boobu nag ñu demee xeex yonentu xeex na juróom-ñaar fukki xare ci fukki at yi mu toog ci ci Medina léegi nag yi fekk moom itam yonent yàlla Idrissa biñ demee ba ci sulhu Hudaybiya ñu dem ba jub màkk waa Màkka arrêté ñu négocier waxtaan waxtaan waxtaan ñu ne ko dañ ñuy bàyyi ba déwén ñuy waaj génn génn dëkk bi bàyyee la ko nga toog ñetti fan su def sa omra def lu la neex waaye ñun duñ la bëgg moo tax mu mu mu ci la fukki at yooyu nag moom itam ñu toog fukki at yoo xam ne dootuñ guerre fukki at yooyu ci la yonent bi occasionné di di di bind buur yi buur yi Kisra buur buuri Faris buuri eh, Hercule ba ñoom ñëpp buuri Misra mu xaw xis ñoom ñëpp mu di leen bind leetar moo tax ki nga xam ne Idrissa mi nga njëkk bind moo tax loolu bind la moo tax yéen jikko yonent yàlla Muhammad ñeenteel mbind la moo tax mu fekk foofu yonent yàlla Isa yonent yonent yàlla Idrissa ba demee juróomeel fa la fekk fa la fekk Haaruna Haaruna moom mbokk moom xeetam wi dañ ko bëggoon bi yonent toogee Màkka ba am juróom juróomi at la toog bi Medina ci la gis ñu bëgg ko bëgg koo xam kenn mësu ko bëgg kenn ndax boo gis nañ jikkoom yi rafet yi gis na ba mu ñëwee lam njëkk a ñëw ñem fa fekk ak ñi ñëw dañoo daf leen benn nag ku nekk mu ne sa doomi ndey ak nii am na ñoo xam sax dañoo fase seen jabar yi jox ko na ndax ndax saxaaba bu ñëw te andiwut jabaram ñoom ñu mën a am jabar moom moom ku kuñ mës ta bëggee fi noonu kenn mës koo gis yonent itam ba mu demee foofa ci atam ñeenteel noonu nañ ko bëggee ba loo tax moom itam atam atam juróom juróom juróom benneel mu ne foofu la loolu tax moom itam mu fekk foofu yonent yàlla idi Haaruna mu dem ci asamaani juróomeel juróom benneel foofa la fekk Moussa Moussa yàlla dafa defoon moom la yonent bi mu demee ba ci juróom benneeli xaalam yàlla daf ko wax ne mu dem xeex ak jabaar jabaabiratu yi ñuy xeex ak ñoom ñu ne ko inna la nadxulaha xata yaxruju minha fa in yaxruju minha fa inna daaxilun daf leen ñoom ñu génn ñun duñ dugg fekk ñoom ña ngi fa waaye soo leen demee nag ñun ñu door a dugg yàlla indi leen tiiw réer ngoo xam ne suñ xëyee dañuy dox ba ngoon jo rek ñu del si ci fañ jóge yoon loolu def nañ ko ñeent fukki at mënuñu jóge fiñ jóge woon mënuñ fa jógee te mënuñoo dem feneen moo tax yonent yàlla Moussa foofu loolu yonent yàlla Moussa mu dem ñu ebal ko mu dem xeex ak jabaa bi la tuye waaw ba ca la deeyee Haaruna ci la deeyee nga gannaaw gi ñu yeneen saxaaba bi ñoom ñoo àggale message boobu xeex ak tubaab yi asamaani juróom-ñaareel fa la fekk yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima mu ne moom mooy bàyyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam bi nga fekkee fekkee fu moom mu mu moom la yàlla wax ne wa is yarfau ibrahima alqawaida min al beyti wa ismaila yonent yàlla ibrahima mu tabax kaaba gi moom ak doomam ismaila benn muur lañu ñu amoon rek suñ tabaxee ba taba ba ba jotatuñ ko rek ñu fanaan suñ ñëwee fekk mool bi màgg ñu daal di taxaw cooci mën a tabaxaat ba kaaba gi am foofa xeer woowu moom moo nekk ca ca ca ca ca xijir ibrahima xajar xajar ibrahima waaw boobu nga xam ne waa Màkka doon nañu wax ne dañ koy toxal bàyyi ne leen subul salaam fii ibqaayil maqaam maqaama ibrahima soo demee ne suñuy wër kaaba gi diggante boobu maqaama ibrahima taxaw doon tabax ñu ne dafa jege kaaba gi ñii tàncandoo di dee foofu lañ daan dee ñu ne dañ koy toxal bàyyi ne leen subul salaam fii ibqaayil maqaam waaye mujj nañ bàyyi ko foofu fa ma nga fa mu nekkoon ba léegi mu ne nag loolu mu ne loolu mu ne nag moom Moussa ñu ebal ko mu dem ci jabaab yonentu ñu rey ko yonentu Ibrahima mi nga xam moo nekk ci ci ci juróom-ñaareel bi juróom-ñaari asamaan bi mu ñëwee moom itam yonentu yàlla li nga xam ne mooy xaalaam li mu mujj def mooy aji màkka ba mu ajee màkka ci la defee xajjat xutbatul wadaa taxaw ci naaqatu googa nga xam ne mu nga tuddoon xaswaa gile moom googa keroog leneen ne ban bis ñu ne ko tey la ajjuma mu ne ci ban weer bañ foo ne dafay soppi weer wi ñu ne ko zulxijja mu ne ci ban dëkk ñu ne makka mu ne ndax jotal naa ñu bàyyi mu ne xutbaam googu wax na ci loo xam ne ba yàlla bindee asamaan si ba ba muy lépp loo xam ne lu juróom fukki góor dinañ ca daje wax na ko ca saxaaba yi ñu ne moo tax su dara xewaan rek day mel ni yow mu amoon sa xarit bu dee tukki du yàgg ba ñëw ni nga koy xàmmee noonu la de moo tax nag yonent yàlla moom itam mbiram juróom ñaareel moom mooy dem ca Kaaba ga de de dem xaji mu def xajatul wadaa xajatul wadaa ba mu ko defee ba dellu Makka kii rek la ci teg juróom-ñett fukki fan ak benn moom la ci teg daal di uji boromam kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuuti koo xam ne mbiram soo ko tegee soo ko wayn taaw du ni'matallahi laa tuxsuha te moom mooy moom moom moom dayob neem ki mayeg yàlla moom moom moo ne ana rahmatul muhda kooku nag suñu wax ay yëfa mënuñoo wax mënuñoo wax lépp waaye ñàkk mën a wax yëpp lépp du tax ñu wax ca dara bàyyi dara fi ne nii gannaaw àddina bi dafa xat sax gàmmkat yi ni ñu def dañoo waroon a jël benn tem ci jikko yi mu def ndax bàyyi daana si mu ne fukki at yi mu def ci màkka xeex na ci juróom-ñaar fukki at juróom-ñaar fukki xare moo doon ilimaani jàkka ji mësta mës kenn mësta julli gannaaw lu may mu mu dem xare mu dem xare ji mu ne moo doon docteur bi booba xamuñ docteur ku feebar moo lay faj moom rek moo doon jàngalekat bi ndax boobu kenn jàngul dara moom sax bi ko yàlla di wàcc ci alxuraan def ne ko iqra mu ne ko maa ana bi xaare ndax jàng xewtoon ci ñoom loo taxoon Abu Jahl ba mu commencé di jàng Abu Jahl ne Muhammad ibn Abdullah mën naa ko muñal lu nekk ba mu des jàng jàng kenn du ko def ci mag du dëgg mu ne ko bis bu fi jàngee alxuraan maa fi ëpp ay waxambaane tooyam naa leen ebal ñu ñëw faagaagal ko yonent ki rek ba ko déggee dafa nekk ba danaa nekk ba timit ba guddi sax mu dem ci jàkka ji waaye keroog ca tàkkusaan ji dem ndax yàkkamti ba mu ñëwee di jàng ca kaw fekk ñoom ñoom ñi ngi defoon seen grand place Abu Jaal moom moom la ñuy Abul Hakam mu ne ñu toog ñu ne ko ah Abul Hakam sa waa ji ñëw na di mu ñëw ca peelu di jàng ca kaw ba muy jàng ca kaw Abu Jaal ñu ne ko sa waa ji ñëw na di mu jóg jël xeer woo xam ne bàyyi mu ne mi ngi am na ni boppi nit bi mu ñëwee ba jub yonent rek dëpp di daw di daw daw ñëpp di ree di ree di keex keex ne ko Abul Hakam looy daw mu ne xanaa gisu leen li ma gis ñu ne ko déedéet mu ne bi ma ko jubee kuyéel gëlëm loo xam ne ñaamam laa ngi tege ci bopp yonent bi ñaam ñaamu ko ma ma ngi ci asamaan muy julli safara su doon yéen nu ngeen def ñu ne ko xanaa daw ni nga dawee rek kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla yonent bi ba mu déggee loola ba mu wax ne man maa fi ëpp ay wax mbaane tooy mu ne naa yadu naadiyahu sanadu yi abo jaal na oo ay waxambaane tooyam kon lay jël malaaka yi ebal leen keroog boobu la ñuy def gis nit kuñ jëlee ci àddina sànni la ci safara te jaaroo ci dee moom waaye loolu feeñ na ci keroog xare badar bi nga xamee ne yonentu ne ne fii la Abu Jahl di daanu fii la fii la Utbata di daanu fii la Shaybata di daanu fii la Walid di daanu fii la Abil Buxtari di daanu la waxoon dara xew ci junney nit wala su fekk junne bi su fekkee manqué ne juróom fukk rek la ñu ñëw song ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett waaye yàlla ànd ca ne mu ne leen kam min fi atin kasiiratin xalabat fi kam min fi atin xalilatin xalabat fi atin kasiira mu ne mu su fekkoon ne ishrina saabiruna yaxlibuuna mi atani ñaar fukk yu mën a muñ rek suñ taxaway seen kam danañ rey ñaar ña kii ña ña ñaar téeméer waaye àll ak yi sax ab effet yi sax reconnaître nañ ne ndax yonent bi dafa jaaxle ñu amuñ ngànnaay lu ñu am juróom benn jaasi ak ñaari fas ay dàll sax amuñ ko ñu ci des dañuy fandaañu dañuy dox ak tànk mu ne yow yonent bi nag ñu mbaaral ko mu ñëwoon ñaan yow yàlla su fekkee ne message bii nga ma nga ma yónni dëgg la te yaa ma yónni kon dimbaleel kuré bii xiif nañ leel leen mar nañ nandal leen sonn nañ rafle nañ odd leen mu ne ko kuré buy kuré bu tuuti bii soo ko soo ko faagagalee tey kenn dootu jàmm ci kaw suuf Aboubacar daal di ñëw fekk yonent bi am ñaan ba kaalam da jóge daanoo ci boppam daanu ci gannaawam mu ñëw ko Muhammad doy na sa yàlla du yàlla du mu ne ko mu ne mu ne ko wax nga dëgg Jibril la nga nee ànd ak Jibril la nga nee ànd ak ñaari ñaar ñaari ñaari junne fii la nga am ak ànd ak junne malakul mawti ñoo nga ànd ak junne bàyyi mu ne way Quraysh ñoo xam ne su fekkee junne junney malaaka iblis benn malakul mawti moom kenn rek ba kenn bu faat moo la dagg moo rey ñu boole ko junney nit ñoom ñëpp ñu boole leen def leen juróomi junney ñi ñu ne danga ñëw ba jub nit rek nga gis bopp bi dot xam nañ ne am na leneen luy dimbale yonent bi doxee moom moo xam ne xamuñ ko ñoom yàlla nañu yàlla dëgëral ci diine lislaam jooju yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy ànd ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tam gërëm ñu bis ba nga xam ne yow mën na doo kullu unaasin bi imaamihim bis waxtu bis bi yàlla yow yow alastum mbooloo mu nekk dañuy ñëw ànd ak seen imaam yéen ñi da ngeen di ñëw ànd ak imaam mii kenn ku nekk mu ne keroog rek la ñuy xam ne yàlla moom moom moom mooy kër yi moo mën a tëdd ñu ngi gërëm jigéen ñi ak góor ñi ñu ngi gërëm ndaw yi xam nañ xat-xataa yi nga nekk waaye lii dafa jokk ci guddi gi démb gi nga xam ne rek ci lañ doon teeroo Cheikh Mahamadul Mahi ñu ne bàyyi moo bëgg a feeñal boppam ndax dana ne dana ñëw moom moo daan wax ne koo xam ne soo ayee kenn dootu ayee liy maandu mooy nga mujj aye ñëpp jël nañ seen wàll fu ñu bàyyi ci extra yi rek suñ compté compté compté boole ko ci ñenn ñi rek ak ñi ci des loolu waaye yëf yi jot na yëf jot na pay gi jot na jot na pour Mawlana Cheikh Ibrahim feeñ ci li nga xam ne moom moo ko moom moom moom la indi kon nag yàlla ñu yàlla boole ci am toppam yàlla na yàlla digëral diine lislaam yàlla na ñu yàlla boole ci kuréel bi nga xam ne lislaam dafay digëree ci ñoom ñoom itam ñuy digëree ci seen ci ñoom méthode bi lu am solo la moo indi diine lislaam ba àgg fii ndax tubaab yi bi ñu fi ñëwee dañu doon aaye école yi kenn du am autorisation ñoom pour jàng a jàng alxuraan sëriñ si def loo xam ne dañ koy mbaar nit ñi daje gune yeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñu di leen wax waxal seen diine ñu koy gën a xam ñu leen di waxal seen yonent ñu koy gën a bëgg loolu moo ñëw ba fii moo tax Sénégal euh, kuréel bi nga xam ne ñoom la tubaab yi yaral seen bopp jàngal leen école ñooñu suñ suñ jàngee ba pare suñ amul seen licence suñ leen amul suñ suñ leen amul embassement embassement rek dañuy dee taxawal waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi soo demee Sandaga da nga gis koo xam ne mu ngi liggéey ay million te mënta bind turam sax ci tur ci alxuraan la koy bindee. kon kuréel bi gën a bëri ci senegaal ci jullit ñi ñooñu alxuraan lañu mooy jullit ñi ku ci gën a lott ci ci ci ci arab mën naa tari fatiha mën naa jàng ay saar ci alxuraan ñoom ñi nga xam ne nag loolu leer lañ jàng mënuñoo xamuñ dara ci diine lislaam kon diine jii dafa ñëw ki puy yërmaande yal na ko yàlla saxal ci ñun ñi ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee jataay bii tuddee tuddee gu mag la tuddee goo xam ne ñun dañ laa dañuy jël sa tur rek mel ni li ñu waxee ni ñu waxee Mouhamadul Mahi Ibrahima wa Mouhamadul Haadi Ibrahima askan leen ci Ibrahima yéen tam yéen yéen ñu leen askan ci yonent yàlla Mouhamad kulluna Mouhamad yuna kulluna Ibrahima yuna yal na yàlla saxal teraanga ñu ngi jéggalu suñ sañoon dañuy def ak yéen ba bët set dalee ko Mawlana Cheikh Ibrahima mi ubbi woon daara ji dix heures ci guddi la daan toog ba dix ci suba mu dalee ba yàlla bindagut kawnu bi bind yonent yi yonent bu nekk da nga def ak karaama yi nga def ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak lim ni mu fekkoon àddina bi ak ni mu ko def ak nim li lim fi bàyyi ak nim saxee te kenn dimbalewu ko yonent bi ñaar yooyu ci biir ndeyam la baayam dee ñeenti at la yaayam dee ñu jox ko maamam maamam juróom-ñetti at mu dee ñu jox ko bàyyi taxam abu taalib mu amee ko bi mu amee juróom fukki at ak ñaar waaye moom li mu koy bëgg bëgg sax su duggoon ci lislaam ñu ne dimbale na ko waaye daf koo bëgg bëgg bëgg bëgg bàyyi dafay ne kenn du Abu Taalib su fekkoon ne dugg na ci lislaam waaye su ci duggoon dafay dimbale yonent te yonent yàllaa koy dimbale boppam ñu tam yàlla ñu yàlla dimbale boppam bi muy demee Abu bi mu demee bay waaj a dee yonent daal di ñëw na ne ko yow sama baay defal nga ma lu nekk ci àddina te man mënumaa fay lu ma ci lislaam dama bëgg nga ñaari baat yi rek ma dox sa digganteeg mbugalam safara mu dem bay wax ba mu yàgg mu ne ko ah dama bañ sa nawle yi ëllëg ñu naan sa baay bi muy dee dafa tiit ba wecc ba soppi diineem moom bëgg yoon bi sax moo moo tere mu dugg ci lislaam gannaaw gi am nañu ñëw ne ko wax na ko waaye mu ne moom seddewu kon nag ñun ñi nga xam ne dañ cee juddu yaru ci nekk ci yal na ñu ci yàlla dimbali yal na ñu yàlla saxal yal na yàlla yokk teraanga bu ngeen mën ren yàlla ngeen ko mën mu déwén lu ko am am ngeen bu Cheikh Ahmad Tidiane am ngeen bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nit ku nekk am nga mbokk waaye mbokk gu ne am na jege ñaante góori lislaam yi ñi nga xam ni ñoom ñu def tariqa suufi yi ñooy défendre l'islam muy murit muy tijaan muy xaadir muy muy muy muy muy lu nekk yoon yëpp yoon yëpp ay yoon la yoo xam ne ci yàlla la jëm ku doon dem Dakar nga topp topp yoon wi rek jàddoo lu mu yàgg-yàgg sooy dox sax da nga àgg waaye su fekkee foofu gis tourné rek nga tourné danga dox ba sonn waaye doo dem waaye nag mbokk googu lu muy mbokk mbokk mbokk ñun Mawlana Cheikh waaye mooy suñ sëriñ euh, yàlla yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi mooy suñ leader baati laa ilaha illallah mooy suñ hymne national suñ constitution mooy alquran al karim suñ jubluwaay mooy kaabatul musharraf suñ yonent suñ leader ki nga moom la ñuy topp topp ci kooku topp topp ci kooku mu nga xam ne ni Baye waxee ida saara xayru naasi surtout waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidun mu ku topp ci gannaaw koo xam ne bàyyoo mukk fu mu dem nga dem fa mu ne bàyyi mu àndoo mooy ànd rek su kii toogee kii di dem ànd bi jeex na waaye moom gannaaw dafa topp ci yonent bi ba nga xam ne fu mu dëgg tàng mu topp ci kawam yàlla ñu yàlla may mayam teraanga ñu itam gën a am maqaama bu ñu topp ci gannaaw Cheikh Ibrahim ba ba muy àggee ca maqaadi sirkin inda malikil muqtari yal na yàlla faj seen aajo yàlla bu fi kenn benn indi benn benn feebar lu mooy yàlla saafara na ko yàlla bu fi indi kenn benn jafe-jafe lu mooy yàlla yombal na ko kuy examen yàlla nga ko yàlla may yàlla ko yàlla may réussir école yi bëri na ay jafe-jafe ñi ñaa ngi ñi ñaa ngi garaw ba nga xam ne li ñu waroon a jàng jànguñ ko waaye terew yàlla ñam jëm war ñam na nam ma omat dana leen omat yàlla na leen ci boole jigéen ñi nga xam ne amaguñ jëkkër yàlla nañu am jëkkër ñii sëy yàlla na yàlla barkeel seen sëy borom kër yi tam yàlla na yàlla lii nga xam ne moom mooy mën se àddina bi ñu naan Ukraine ak butin Poutine ak Trump moo moo moo moo moo gënoon moo gënoon moo gënoon a jafe waaye yàlla jëlee na ko fi ñoom ñëpp dañu firaaw naa leen gënoon a garaaw ñoom ñëpp moom mi ne woon abni li sarhan inda baytik abni li ne daf ne daf ne daf ne ja ji kéem bi tabaxal ma ay escalier ma dem ndax yàlla ji Moussa di wax ndax su ma ma su ma demee xotti mu ñu xam ne man du ma du kenn waaye yàlla dugal ko ndox rek la ko booleel ndox mi nga xam ne nit ñi mënuñ koo ñàkk naan ndox rek la ko booleel mu rey ko mu te reyu ko mu ne ko nag danaa la def nga doon leçon boo xam ne exemple boo xam ne du dañ mukk la àdduna géej gi mënoon na caa lab jën yi mënoon nañ koo lekk waaye géej gi daf koo gëx ñu jël ko taaj ko ba léegi soo demee ci musée Égypte yaa nga fekk mu tëgg jëmm ji dara mekk soo xoolee da xool xam ne firaw na nii la meloon mu nga tëdd dañ ko woowal rek waaye dara waa dara manqué ci ki yaa ki def noonu yàlla ñu defal teraanga ji dakk indi feesal poos yi ak xaalis ak teraanga feesal feesal xol yi ak bëgg yàlla ak topp yàlla may jigéen ñi jëkkër may góor ñi jabar barkeel li ñuy ut fii yàlla na fii yàlla ga doon dëkk boo xam ne dañ fi dañ fi dañ fi jëggaan si suñ doom yaa ngi dem di topp géej gi di dugg ci gaal yi jamono bu bu bu jegeetul sax mi ngi ñëw boo xam ne àddina bi yëpp danañ ñëw di jëggaan jëggaan si Sénégal Mawlana Cheikh Ibrahim di ne koo xam ne soo ayee kenn dootu aye lii maandu mooy nga bàyyi ba kenn ku nekk aye dafa mel ni teeru démb bi dafa mel ni yii xew nga xam ne Sénégal ak doon xiif di mar ñu commencé gis pétrole commencé gis kii loolu loolu loolu alal ak ta yooyu dafay toujours dafay indi yàlla seytaane waaye yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ bokk ci ñi koy tereew yàlla nañ bokk ñi nga xam ne Sénégal barke bi fi yàlla def góor yi yàlla yi liñ fi liggéey amul Makka amul Medina amul feneen ci beneen dëkk ci àddina bi loolu dañ koy wax ngir sant yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf Niass euh, yan yàlla guddal sa fan wéral sa cër yaakaar naa kontaan nañ